man kay waxuma ko <laughs> ñoom ñoo koy wax <laughs> moom Ousmane ko nag dañ ko war a investir samedi fanweeri fan ci weeru decembre bile ci atum 2023 ca terrain ak APES ba nekk ca Parcelles Assainies El Malick moo joxe boobu boobule xibaar ci le 30 bi nga xam ne nag boobaak léegi ku ci nekk yaa ngi naan Euh, lan moo xew partisan bu leader bu Pastef ñoom ba tey nag bàyyeekuñu ndax gis nañu ci conférence de presse bañ doon amal démb ngir daal di eh, wax ne ñoom eh, nañu investir wala continuer nañu investir seen candidat bi di Ousmane Sonko eh, samedi ji cérémonie d'investiture bi nag ñu ngi koy amal comme ni nga ko waxee fii ci Parcelles Assainies ci terrain pes choix bi El Malick Ndiaye def nag nee na duñ ko defee ci saal. Mm. ndax ki nga xam ne moom mooy seen candidat xajul ci saal. loolu moo tax ñu daal di choisir foofee euh, ca terrain ak APES di rappeler itam euh, que mandataire Ousmane Sonko dégg nga ko démb mu ne dossier candidature bu maire bu Ziguinchor ca conseil constitutionnel euh, daal nañu koy déposé sans le cutus de la caisse de dépôt et de consignation ni les fiches de parrainage de la direction général de élections waaye daal lépp loo xam ne lu ñu leen laaj la. Mhm. muy complet dossier candidature ñoom joxe nañ ko ba wis leen. Mhm. waaw joxe nañ leen. problème bi kay mooy li Sénégal di laaj est-ce que investiture bi dina am ou pas. ah lu koy tere am. Hmm. investir ñu bëgg dem ba Ndiaye Amadou Ba fii ci am otel ah, fii waaw. ñëpp gis ko Bougane deful investiture bu mag fële ca euh, place de la nation. Hmm. fii ci stade Marius Ndiaye keroog gisoo fi euh, ka fi nekkoon ministe Modou Diagne Fada. Hmm. investir Ba. ñoom Moussa Fall euh, Cheikh Mbaye barki dem boo Ndiaye ñu ngi koy wax fii dem investir Amadou Ba fay ca HLM. ca HLM waaw du mm. candidat lañ ñoom. Mm. Mm. ay candidat lañu. Alassar itam. investir nañu Amadou Ba. Mm-hmm. kañ moo ko tere. gis nga fa préfet aaye ko. non police daf ko aaye. non da nga faa gis gendarmerie wala lacrymogène. non dañoo ñëw sol li ñuy sol. investir seen candidat. Mm-hmm. ñu dem ñibbi. léegi ñii dañoo tànn Ousmane Sonko comme mu nekk seen candidat luy tere am mbir mi. c'est la grande question wala terrain ba dafa dañ ñuy toog ba ca bés ba ñu ñëw dañ fay gas dañ fay def teen. Hmm. sañ nañ ko de. toog ba bés ba ñëw ñu daan ne dafa am ku ñu may teen dañ koy gas fii ci ci terrain Agapes. damay bañ xam nga moom boobu noonu Sénégalais di tudd à chaque fois quoi. tudd à l'ordre public tudd à l'ordre public. <laughs> waa fii ana ana ana ana. non xam nga dañ cee gaawee nag déjà coow li dafa xaw a jóg. ba ñu annoncé le 30. waaw ku nekk xam nga ñoom nag dañoo mën politique. Mhm. franchement pour dire vrai rek waa Pastef dañoo mën politique te dañoo mën bés. xam nga ñu bëri def nañu investiture ba ñu xëyee kenn waxu ci comprendre nga wala ñu ciy wax c'est très peu mais ñi avant le 30 nit ñi doon nañ wax kump gi lan la la 30 lan mooy xew ñi naan day génn livre ñi naan dafay cest à dañuy indi beneen candidat coow li mm-hmm. xaw a bëri. Mm-hmm. ndekete yow dañuy investir président Ousmane Sonko waaye ci ginnaaw loolu jaar nañ dem nañ conseil constitutionnel ba déposé. Mm-hmm. te coow amul dara xewut. ay daafe ñëw na démb la mu wax mooy déposé nañu waaye jotaguñ. Mhm. Euh, mbir ma ca CDC. waaye nag déposé nañ comme tout le monde. waaw ndaxte xam nga yoon am nañ cutis même amoon mhm. am nañ cutis. waaye damay bañ ëllëg ñëwaat na euh, déposé ngeen waaye jot leen reçu xam nga nag. boo xam nga conseil moom. Mhm. bokkul ak CDC. bokkul ak DGE bokkul DGE. bokkul Sénat. d'accord ay juge ñoo fa nekk waxuñu yablu seen bopp waxuñu xeeblu seen bopp. yaa ngi dégg démb ci kàddu dàmbooj muy wax jurisprudence bu mel noonu ci instance sàngare mi nga xam ne dafa waroon a dem joxe euh, kiiwam caution am dem ñooñu liggéeyuñu. Mhm. mu jël huissier de ko. dem ministère de l' intérieur ñu ne ko du ñu jël xaalis mu constaté ko ba mu jëlee yooyu yëpp jox ko euh, conseil constitutionnel dañoo accepté candidature am. Mhm. parce que wane nañu kat ñi def nañu ay jéego léegi comme ñi ngi xaar conseil constitutionnel. ah ngi koy xaar waaye investiture bi de wax dëgg yàlla ñoom jàpp nañu daal le 30 Euh, terrain Parcelles Assainies. xam hmm. ndax préfet dana ko aaye. <laughs> wala du ko du ko du ko aaye. wala ñu coupé courant bi. <laughs> ñu coupé. courant bi ah bu ñu coupé courant yi ñu la taal seen torche. Hmm. boobaa leneen mën na faa lan moo fay xew. ma mais mais mais investiture waaw xam nga ma defal nag ma wax la man pour man xam nga lan mooy andi coow yenn yi. Hmm. mooy ñu bañ leen a bàyyi. ñu def seen investiture. investiture dañoo toll ci jamonoy investi di investir man bi nga xam ne sax aw ma ay nit su ma neexoon tey jii jël sama ñett ñu taxaw sama buntu ko ñu investir ma. Mm. ne kii moo ñu doy mais ñoom dañoo wax ne Amadou Ba moo leen doy nest pa pas. nañ ko da ngaa dégg coow wala da nga gis xeex wala xuloo léegi kii moom candidat la xam nga ñoom mënuñu ko tere bañ a nekk candidat. Mm-hmm. tey man yàpp naa xool li nga conseil constitutionnel ci boppam bu ne ñoo xam ne ñu décidé bu ne ñoom seen dossier dañ ko kii tey boobu ngay gën a mën a gis waa yu gën a nekk di campagne. Mm-hmm. gis nga ko ci seen liste yi liste législative yi moom nekku ci woon de. Mhm. te dafa battre campagne. Mhm. ba tax ñu am nombre de maires yi nga xam ne am nañ ko. Mhm. donc nañ na rafet rek mbir mi dañ koy comme ñoom dañ leen di ñaan ci njekk bañu xuloo bañ a xeex ñoom nañ ko ñaan ñu bàyyi leen dem foofu foofule ñu def seen investiture bu ñu paree ku nekk ñibbi. loolu de mooy am jàmm am. yëf yi de dafa mujj rax leneen ku nekk di challenge naan suñu màggal gi. ah naan sama gàmm gi. franchement nag des fois xam nga nii la ñuy def nag nii rek la ñuy def ba ba état bi. waaw mais lii <laughs> politique la bokk nag non loolu du du raison pour état bañ cee ànd. xam nga maa ngi koy wax sànq nee naa ñii dañoo mën communication dañoo mën bés. waaw imaginer le 30 ñëpp naan le 30 le 30 le 30 lan mooy xew. léegi nag te koo ci laaj ñoom ñi xam ne koo ci laaj mu ne la non le 30 xamaguma luy xew donc nañu xaar ndax da ngeen di investi ñu ne non waxaguñ loolu surprise la kii da waxoon na ko sëñ Baara. sëñ Baara nee na surprise d' accord <laughs> léegi nag nee nañ suñu màggal gi ñu naan suñu gàmmu gi ñi naan anytime. ah le 30 le 30. Euh, <laughs> soreetul ah soreetul. en tout mhm. ci mën daam moom xam nga ñun sans limite ñu tam dañoo mën bés. Mhm. ñoom mën nañu bés waaye ñun dañoo mën bés. ñu commencé le 29 incha allah rabbi ba le 31. commencé le 29 ou le 31. ah xam naa ne daam boobu moom dana fi ñëw. ah incha allah incha allah xam naa dina ñëw moom. dinañu ko dinañu ko xaar <laughs> suba mu ñëw incha allah. d' dañoo ëppal nag. Hmm? dañoo ëppal de xale yi tam ñu dañuy ote Adja nee na dañuy ote su. <laughs> parrainage ngeen ote su. parrainage cérémonie demit di nga gis ñu ote su de. man ah. loolu moom man leer na ma nii. Mhm. ñu def ay seen xaatum comme ñoom seen couleur vert blanc la. di nga ko gis baa ma moom laa sol sax man mii. vert blanc wala vert rouge. vert vert daal am na ci. vert moom saf na rouge tamit am na ci dem ah. ah li ma sol nii moom la. <laughs> yow may mën a <laughs> bu sa àndal. dañuy desandi euh, conseil constitutionnel. Mhm. al xam nga ne waxoon nañu ne. Euh, dañuy tëj seen buntu ci talaata joojule bi mun nuy jotee ba ku déposé wul dootoo mën a déposé la ci doy waar démba euh, dañoo def euh, benn communiqué te jagleel ko askan mi ne la tirage au sort dañ ko daal di reporté initialement bu ñu waxee ne nag conseil constitutionnel vient de reporter la date du tirage au sort bu ñu déterminer l'ordre de contrôle des parrainages suba tey la woon waaye suba lañ ko nar a def ñu ngi informé mandataires yi représentant candidats yi ne réception dossier candidature yi dañ ko doon poursuivre ca greffe euh, ginnaaw bu ñu waxee lu 26 nag à minuit. Mhm. Euh, loolu lañ koy dañ ko dañ ko daal yokkaat ñeen nag jàpp nañu ne yëf yi tegul ci dëgg tegul ci woon yaa ngi gis sànq waa tribune li nga xam ne nañu ci daan nañu ci ñëwaat. Mhm. ñu une première fois lu dee ne conseil constitutionnel. Ah joxe date ba ñu tëj ba pare. nga ubbiwaat. loolu lan la bëgg a wane exactement. ah. c'est-à-dire boo nee le 26 lay tëj. Mm. <coughs> le 26 nga wax. Mm-hmm. à minuit. à minuit. Mm-hmm. am na ñoo xam ne mataluñu woon. waaye def nañ seen kéemtu laay kàttan ba matal. Mm-hmm. am na ñoo xam ne mataloon nañu bay may ñeneen am na ñoo xam ne matal nañu waaye dañ doon vérifier. ñëw indi nga ne dañuy tëj le 26 à minuit. Mm. ba ñu xëyee nag waroon nañoo def tirage bi la tax nag defuñu ko ñoom ñoo ko xam. ah ñoom ñoo ko xam ñoo ko noo ko noo ko jàngate lu day ni conseil constitutionnel. wax dëgg yàlla rafetlu ma ko franchement nag pour dire vrai. waaw mais maa ngi koy wax sànq am na ñoo xam ne mataluñu woon mais def nañ seen a tëj. waaw am na ñoo xam matal nañ bay euh, bay may ñeneen. waaw am na ñoo xam ne matal nañ mais dañ doon vérifier ndax doublon du am ak yeneen mbir. Mhm. xam nga Aliou Ndiaye sax mi ci doon ñëw mi ci doon wax démb. yëfu doublon vu que moom euh, nekkoon na ministre de l'intérieur organisé woon ay élection xam na mbiri ni muy demee naam nag le denier mot revient au conseil constitutionnel. mais prolongation moom pour lan la. non nag wax dëgg yàlla moo jaaxal Sénégal. dañoo violer les règles. xaaruñu woon ñu ñu ñu ñu violer ko. ah mais dañoo dañoo violer les règles déjà ñoom dañu waxoon ne. Hmm. Euh, dañuy amal permanence même les jours fériés ak euh, week-end hmm. dañu ubbi woon seen greffe yi. pour permettre ku ci nekk nga mën a ñëw déposer temps bi ñu la jox. Mhm. muy ay délai ñu fixer ay délai mu wax a nekk ay délai de rigueur léegi lu leen ni conseil constitutionnel tëj ay buntam dem ba ci càppaandaw gi. mu ubbiwaat ko. loolu dina tax ñu ci bari. Euh, xalaat xalaat seen xalaat duna xaw a doy waat de. Mhm. ndax dafa am yeneen candidat yoo xam ne. Euh, dañoo candidat yu ñu santaane la. xam nga dafa am ay candidat yoo xam ne candidat yu ñu santaane la. waaw yoo xam ne dañ lay wax ne yow ñoo bokkal rek. yow daal lu mën a am. xam nga wax nga ko démb. bokkal rek nee nga nga gis yeneen mandataire. ah est-ce que loolu. <laughs> waaw man daal li ma eh, la wax tey ngeen ko noonu gis waaye comme gisoo ko tey ah. le vingt-neuf ba suba suba la suba yàggatul. ñu fi fekk. bu subaa ngay xam ne parce que c'est-à-dire le 29 dem conseil conti conseil fa jógee jubali tere ak apes. waaw leen daal xam naa ko <laughs> suba moom comme te leen joxe woon rendez bi. Euh, conseil constitutionnel daal koy faussé. bu subaa xam ne waa passé fa mën a politique ndeysaan mën na xam ma ku leen jàngal loolu moom maa ngi koy laaj élément yi démb ne ko yéen seen mbir mi xam naa doy waat daal ah nañ bàyyi ba nañ bàyyi ba suba rek. Mm-hmm. ak may réccu daal mooy lu tax ma. pataar gi ñu ci waaw koo ci laaj mun la <laughs> dañoo mature léegi <laughs> surprise la surprise. alors ñu dem euh, mm-hmm. ca bokki jawbe